بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي تاي موي سونو نياتيلو جوتاي تي سونو خصيده جي دي استغفر الله به موي استغفر الله العظيم واتوب اليه من ظواهر ومن الغيوب muy xasiida goo xam ne xasiida tuub dellu ci yàlla la xasiida ay bàkkaar la te sëriñ Tuuba def ko radiyallahu anhu wa ardaahu sunu bindu tay mi ngi tàmbalee ci habliya yaa akramu fit xayran kathiran minka wal xalaawa mu ne xëbliya yàlla nang ma may yaa akaramu yow yàlla mi aji tedd ji yow mi gën a tedd fittilaawa ci njàng njàngum alxuraan ak lépp lu ñuy jàng te di juut tuyaaba rek xayran aw yiw kathiran wuy bari min gu bàyyikoo ci yow alxalaawa ak neexit lépp lu ñuy jàng di ci wut tuyaaba yàlla su ma ko jàngee yàlla naa ca fekk tuyaaba joojee nay alquran nay xasida gi yow mi koy jàng ngir tuub nay salaatu ala nabi yow mi koy jàng ngir xéewal yi ca nekk mboolem lu baax rek nee na lu ñuy jàng su ko jàngee tuyaaba ci ca nekk yàlla na yàlla nag ma ko defal waaye defal ma ci tuyaaba ju bare bare bare bari gu bàyyi koo ci yow waaye defal ma ci alxalaawa xalaawa mooy lan xalaa mooy di def dara ba noppi mu neex la ba nga xam ne def nga sax moo la gënal ñàkk gaa def neex li ñuy tuddee passion ngay def dara nga dem ba am ci ak yëg-yëg nga xam ne yow dalaa neex du da koy def ngir wutal ci xaalis du nga du da koy def ngir wut ci daraja waaye daa dem ba neex la dafa am daa lu ñuy tuddee sawux maanaam jaamu yàlla léeg nit ki day dem ba am ci xalaawa ba nga xam ne da koy neex day neex fi moom nga xam ne ni ko nitu tasawuf fi waxee benn nitu tasawuf bu mag nee na bu yàlla dogaloon bu yàlla dogaloon ñu soppi yëf nga xam ne jaamu yàlla léegi moom la ñu wax ne mooy yóbboo sawara mooy yàlla di yóbboo àjjana wala yaasu billaahi loolu du ma saam waaye waxin la nee na su boobaat moom xas na ba am neexit ci jaamu yàlla ba nga xam ne kon xanaa day jaamu yàlla rek te dem sawar waaye faaw mu def ko xanaa day jaamu yàlla rek te dem sawara waaye faaw mu def ko gis nga ko kooku daa dem ba am ci sawru daa dem ba neexiti jaamu yàlla nekk fa moom nga xam ne looloo waral am ñu yàlla may ba nee ñu danañu nekk seen baam bàmmeel sax di jaamu yàlla ngir tàmm ga bal danañu dem bay nekk àjjana sax seen xel di nekk ci jaamu yàlla ñooñu dañ koo tàmm am na ñoo xam ne njàngum alxuraan da leen na neex ba nga xam ne def ga moo leen gënal ñàkk gaa def nga xam ne defatuñ ko sax ngir dama am soxla di ko ñaan wala nanga waaye daa dem ba alxuraan neex na leen euh, alxuraan lu neex la loo xam ne du sàppi képp ko sa xol leer nekk ca moo waxkat boo xoon ne kalaamun qadimun laa yumallu samaahu hmm, loolu du sëriñ beek way am na ñu koy jaawale waaye sëriñ bi wayu ko mu ne alxuraan waxla la ju neex joo xam ne ku koy déglu du ko sàppi mukk kon jaamu yàlla gu daa am ño xam dañuy dem ba am ci sawxu nga def ga dalay neex wa bu ne la jugal julli nga tayel wala jang alquran nga tayel ci rek kon ba legi neexit gi mu am desna na ci yow ala na ko defal mu ne ko barik yalla na nga barke li ñeal mam allahumma yow sama borom fii xayaati sama wajal te yàlla na nga def fu al sama xol watanal ayati di keruk alquran di keruk alquran di dekup aaya yàlla yi mu ne yàlla na nga barkeele sama dund yow sunu borom subhanahu wa taala waxoon naa la dafa tuub dellu ci yàlla ba rëppi do ko ñaan waxoon naa dafa dellu ci yàlla moo tax bari na looy ñaan faaw da ngay tuub da ngay raxas ndable ba mu set ngay doog a duy moo tax mi ngi duy yàlla na nga barkeele sama dund yàlla na yàlla barkeel sunu dund ñun ñëpp dund gu barkeel mooy lan wuuteeg ni ko Sénégalais yi jàppee Sénégalais bu ñu waxee barke rek. mooy ku am xaalis ak noo ko mën a amee comme xaalis di séddale di yóbbu yaay makka di ñu koy tuddee ñu ne diw daa am barke barke mooy koo xam ne yaa ngi dund dund gu teey mosuñu laa jàpp sa loxo ne da ngaa sàcc yëfi jàmbur mosuñu laa yóbbu tribunal ne da ngaa tiriyaa alali jàmbur wala da ngaa def dara jigéen loo ko war a def wala yu mel noonu loolu mooy dund gu am barke koo xam daal ma ngay góorgóorlu ci jaamu yàlla ya bu dee am nag njaboot kenn mës a njabootam ñëw ne leen ne sa njaboot gi lam def cëy sa njaboot gi sa doom ji lim def marché wala cëy sa soxna sa wala yu mel na wala ku bokk ci yow ku yàlla def ci imam barkeel mooy koo xam ne du faatu mukk bu demee ba génn adduna tamit du faatu ay jëfam dafay des ñu koy nettali muy jëf ju baax mu ne yàlla na nga def sama xol bi muy ndabal alxuraan muy kërug alxuraan muy kërug alxuraan wax na dëgg waxoon qalbi yudabbiru aayan tuurisul xikama nee na buy na nelaw naw mi ibadatu rabbin la sharika lahu qalbi yudabbiru aayan xikama nee na su ma demee ba tëdd sax li nit ñi jàppee nelaw man su ma demee ba di ko def nee na ak jaamu yàlla lay doon ndax sama xol bi mi ngi nekk ci aaya yi di ko lux mbóot di génne secret yi loolu dafa fekk dafa fekk aaya yi dëkk ca xol ba Sëñ Tuubaa moo ko alxuraan dañoo dem ba dëkk fu mu nekk mu nekk fa boo jàngee nooru daara yi da nga jàng wacc xal kitaabaka ma'i haysu akun yaa waahiban wahabtali kun fa yakun na nga def téere bi fu ma nekk rek mu nekk faak man yow yàlla yow mi ma jël kun fa yakun jox ma ko ma ciy faj samay mbir mu ne habliya yàlla nag ma may kaw ni sama nekk bishra kulli man yatub may mbégum képp kuy tuub di dellu ci yàlla képp koo xam ne ab tuubkat la di dellu ci yàlla na may bégee na may bégee képp koo xam ne day tuub jëm ca yow nay nekk koo xam ne man am mbégam laay doon na may bégee di bégee sëriñ Tuubaa ngir jëmmi yàlla ak lim defal yàlla ngir li muy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa abin te yàlla na nga dagg lii ñeel ma yàlla nanga ma dindil azawahiriya azawahiriya ayib yi nga xam ne ayib yu feeñ la maxal xuyub ànd ak ayib yi nga xam ne ayib yu nëbbutu la wala nga ne azawahira bakkaar yu mag yi bakkaar yi nga xam ne ñi ngi jàkkaarloog maanaam dafa feeñ nit ki da koy jëf ñëpp di gis ak bakar yi nga xamne ne dafa neub wa abid yal na nga dag li ñal ma adawahira bàkkaar yu feñ ya mal khuyub and ak bàkkaar yu neubute waxon na nak nit yalla yi ñoom li ñi tuddé bàkkaar hasanatul abrar sayyatul muharrabin kon yal nak ma def may mbegum kep kuy tuup te yal nak ma sutural li feñ ak li neub lepp yal nako yalla defal mbollem lu mu ñaan ci rek ci ak sutura ak wuññil ñuy xam-xam ya ak defal nu barké ak barké la sunu dundu yàlla nañu ko suñ borom boole defal ñun ñëpp defal ñu tuub ñu nangu ci barke xasida gi mu ne xabulan maa ngi sàkku ci ak nangu goo xam ne akoonu danaa nekk bii ca nangu ñaan googu yi nangu xasida gi taahiran di aje laab mina dunubi ci ay bakkaar wala maasi ak ay moy yàlla wala ay ayfaat ak ay gàkk-gàkk xataa addu xola ba keroog may dugg aljannata ajjana aliti ajjana ji nga xam ne waida diggas na ko almuttaquun waaye ragal ña yàlla bi rahmatika ci sa ya rahman wa yow yalla mi aji yërëme ja yermane ju matale ji ya rahim rahimu yow yalla mi aji yërëme yërëme ju jañu jangay jagleel ña la neex mune ne gi yalla nang ko nangu nangu koo xam ne dama ci laabe ci ay bakar ak ay moyal ak ay gak gak bakar ak may tàbbi aljana lolo tax ñu ne xasida gi kep ko ko jang laam nga ci ay bakar laam nga ci ay moyal laam nga ci ay gak gak bakar keroog ngay dug aljana incha rabbi yalla man na ko yàlla nanu ko defal ci barkeb sëriñ bi ndax sëriñ bi moom wax na ne yaa man jamia xiddamee taqabala yow yàlla yaa nangu sama yaa nangu sama lépp kon nag xasida gi ñu di ko bari lu ñu jàng di yàlla nangul ñu defal ñu tuub buñ sell di ñaan boole ñu ci ñi nga xam ne sax duñ leen bindal bàkkaar dañuy damm seen xalimak bàkkaar ndax loolu am na yàlla mën na ko di ñaan képp ku jàng xasida gi ngir sàkkoo tuub yàlla na ko yàlla jéggal mboolum lu mu mën a def te yàlla suuturaal ko ba du du ca jaarati xel ne tuub nag Euh, ñetti sart yooyu ñu ca waxoon nag moom la am euh, waxuñu nag nit ki di dem def def ay tooxi doona heure bu ko defee ne xaaral ma dem jàngi xasida gi loolu ak waru la moo koy def ne rax yow daal xasida gaa ngi fi ko ko jàng rek dangay ngay set ci ay bakkaar ni bis bañ la juree kon deel def say tooxi doona rek di jàng loolu foo ko gis rek ak waru la ak jéem a waranteeg yàlla yu xaadiuuna allaha walladina amanu waaye nag wa maa yu xaadiuuna illa anfusahum wa maa yash'uruun nee na am na ñoo xam ne jéem a mel ne koy war yàlla di ko a naxanteeg moom te xamuñu ne seen bopp rek la ñuy nax te xamuñu ko يال نونو يالا ديفال ديغ توب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين علي بدر جاي طوبى والسلام عليكم